mbokk taalibe yéen doon topp seen télévision almouridia lii mooy programme bi nga xam ne moom leen andilaatoon tey muy tey ci fukkeelu fan ci weeru koor wi euh, mu doonoon njàng moo xam ne kuréel bu Thiès ñoo ko aye woon ni ngeen ko déggee sëriñ bi kon ñu ngi koy waaju gunge mu génn saal bi te gunge boobu kuréelu kawlax ñoom ñoo ko amee lii mooy programme bi ñu leen ngi nga gis kon euh, fenn fu ci ne nit ñaa ngi jóg di waaj a génn saal bi sëriñ bi itam euh, àggal na teewlu gi mu doon teewlu njàng mi te li ci des mooy kenn ku ci ne tamit ah dellu ci barabam ndax euh, tey fi ñu toll nii 18h30 jot na kon benn waxtu woo xam ni euh, teewlu nañ xasida yi euh, sant ci bu baax ndax njàng mu am solo waa kuréel bu Thiès jox nañ ñu ko te itam noonu lay demewaat suba ndax suba kuréel Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ñoom ñoo ayawaat njàng mi su ko defee ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi di ko gunge tam mooy kuréel bu Louga kon loolu mooy programme bi nga xam moo ñuy xaar suba Euh, muy doon loo xam ni tamit mbokk taalibe yi njokk jullit yi ñëpp danañ ñëwaat teew ni nga xam noon lañ ko teewee ci saal bi muy liggéey bu am solo boo xam ni euh, kenn ku ci ne yaa ngi koy dund boobu ba léegi euh, tey loolu tamit di tawfiix ju rëy joo xam duñu dañ ci ko fàttali Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké li mu taxaw mooy dundalaat ni Serigne Touba doon dundee koor ca weeru ca ba mu nekkee ci njaarim muy liggéey boo xam ne tamit kenn ku ci ne fi miin nañ ko xol yi tàmm nañ ko ba kenn ku ci ne mënoo ko ñàkk yéen ñi topp tam seen programme Al ñu leen di ñaan ngeen wéy di ko topp ndax yeneen émission yu am solo yu dëppook weer wi dana am te loolu nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen euh, ba weer wi mat ñuy ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér euh, fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah c'était le programme alléchant que nous avions à cœur de vous proposer aujourd'hui en ce vendredi dixième jour du mois euh, de Ramadan et qui coïncide avec le vingt-troisième du mois d'avril 2021 c'est une prestation qui était dédiée à la cellule de euh, Thiès, c'est la cellule de Thiès, de Kourel de Thiès, qui était à l'honneur aujourd'hui et qui a déclamé pendant une heure devant le Khalif général des Mourides, n'est-ce pas, des écrits du vénéré Cheikh dans des mélodies, n'est-ce pas, et, qui révèle une dextérité, n'est-ce pas, qui révèle également l'effort, euh, la, préparation et tout le travail d'approche que ces chorales ont eu à faire Et ça, il faut tirer le chapeau à une structure qui a été dédiée à ce travail qu'on appelle la DNC. La DNC, ce n'est autre chose que la Direction nationale du conservatoire, puisque l'envergure et l'ange que constituent les écrits de Luamba et la psalmodie de Kassaïd fait que donc Hizb en a fait une direction et une direction nationale dont le travail est de sortir des programmes en amont, de suivre leur exécution, de faire le contrôle de qualité également Euh, pour que l'on puisse avoir en tout cas des prestations dignes de ce nom, puisque nous avons l'incommensurable honneur de le faire devant le Khalif général des Mourides, ce qui est une chose, n'est-ce pas, que l'on doit mériter. C'est pourquoi, euh, fidèle à la trajectoire qu'il a choisie, cette direction a été euh, faite, n'est-ce pas, montée pour que ce travail-là puisse être fait toute l'année durant. Ce que l'on voit, ce devant quoi les gens s'extasient, ce cette dextérité dont les courelles font montre et qui rivalisent, n'est-ce pas, de d'aisance de, de, et dextérité dans, le, dans la psalmodie de Chassaïd, mais ce n'est que la partie euh, visible de l'ASPR, parce que la partie cachée, c'est ce travail, n'est-ce pas, fourni, et ce travail profond que la direction nationale du conservatoire, s'attelle à faire, et cela toute l'année durant. Tout y passe, les programmes, la, la, le contrôle de qualité, tout y passe, puisque également il y a des dans les cellules, détourner pour véritablement voir ce que travail est en train d'être fait et bien fait. Il y a toute une administration qui entoure cette déclamation des Khassaïd, puisqu'il y a, n'est-ce pas, un comité qui veille au grain pour que le travail puisse se faire dans les règles de l'art. Et ce comité, c'est celui qui s'occupe euh, de la régularité des séances de répétition, des séances de répétition pour voir qui maîtrise bien la mélodie, qui maîtrise bien la finesse, qui maîtrise bien la répétition et même Euh, la manière de lire les, les lettres en arabe sans faire de faute. Tout ceci, ce sont des critères qui font que la prestation est faite et bien faite, et cela sous le vigilant de ceux qui ont à charge ce travail-là. Donc il faut voir que euh, tout ce qui est, n'est-ce pas, un travail colossal qui est en train d'être fourni toute l'année, évidemment, porte ses fruits aujourd'hui parce que devant psalmodier, Euh, produire devant le calife ne pas être une chose incommensurable. Lui qui est le premier contrôleur de la qualité, on le voit, n'est-ce pas, attentif à chaque lettre, attentif à chaque lettre, attentif à chaque verre, attentif à chaque production que les gens font. Te dire donc que on ne saurait avoir d'autre attitude sinon de faire en sorte d'être regardant par rapport à tout ce qui est critère et qui fait que donc la production est digne de ce nom. Voilà donc c'était un focus sur la direction nationale du conservatoire pour que l'on sache que ce travail qui est en train d'être fait, et d'être bien fait, ces productions dont les gens s'extasient, mais c'est le produit, n'est-ce pas, c'est le résultat d'un travail fourni, d'un travail fouillé, qui est fait par une direction qui a la lutte d'un véritable ministère parce que tous les agents qui y travaillent sont en connotation avec la direction générale et cette direction est un démembrement de cette direction générale-là qui s'occupe de bien d'autres choses. Mais les Khassaïd, depuis que le calife a montré que notre préoccupation première, ce sont les Khassaïd, tout ce qui vient vient s'y greffer, c'est la preuve que donc c'est lui qui le premier a placé la barre très haut pour que les gens à faire un travail digne que qu'il y ait des gens qui sont dévoués à cette tâche Et évidemment, on ne le regrette guère puisque les choses vont de performance en performance. Voilà donc aujourd'hui la leçon du jour, c'était surtout se focus sur la direction nationale du conservatoire pour que les gens sachent que ce, cet aboutissement, n'est-ce pas, ce travail, n'est-ce pas, qui est fait par le, la direction nationale, mais est en train de porter des fruits et on sait que cela va continuer ainsi Puisse Dieu accorder une longue vie et une très bonne santé au Khalif général des Mourides, qui l'instigateur de tout ceci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa